salaamaaleykum xarit euh, ci seetaan euh, seen euh, télévision RTS 2 ñuy am nag mbégte bu reuy di len fekk ci sen i kër di len nuyu bu baax baax euh di len nak dalal ci émission bu bees tax fi ci sen télévision bi nga xamante ne euh bakam rek moy sa suné ne di len gën di jege ci sen bëgg bëgg euh tamit ci li nga xamante ne si moom ngeen di dundu sa suné ne euh, kon nak euh, émission bu bees ñu duppé ko Kër Leyti euh, fi ñu nek ni nak ñu dal ci ki nga xamantene ne si mooy Kër Leyti Fall nek borom kër gi ñu rek diko nuyu laataa nak ñoo ñëw ci solos émission bi. ma ngi lay fay nuyu. Mhm. euh di nuyu ñi ñu ñi ñu see ñep mhm. di nuyu tamit ñi nga xamné ñoñu fekk ci tay ci suñu kër. alors ci sa wet dinañ ci xam dara ci kanam. ñu nekk ki nga xamante ne si euh, mi ngi tudd Khoudia Fall euh, jamono yi nag euh, am na loo xamante ne si moom ngeen di waaj bëgg ko sénégalais yi fas yéene leen ci gën a xam gën leen ci topp di xool fu wànnent du mujjee ak ay gëtam Khoudia na nga def. maa ngi fi koddu maa ngi leen di nuyu yéen ñi ma bokkal plateau bi di rafetlu toogaay bi mm-hmm. fi wànnent du mujjee ci bëtam moom tana rek wér. telek mm-hmm.

jërëjëf Kodo euh, kontaan naa torop ci invitation bi nga ma invité fii mhm. parce que tey waxtaan bi ñu naa waxtaan lu am solo la mhm. dinañ ci ñëw bu si kaname mhm. di remercier Leyti mi ñu recevoir tey ci këram di contane aussi di toog ak euh, monsieur Guèye fii ci plateau bu intéressant bi ñu nekk mhm. tey ji. Mhm. jërëjëf madame Doucouré monsieur Guèye euh, moom nag euh, moom expert la boo xamante ne si xam-xamam dafa màcc ci lépp loo xam ne day jëm ci wàllu leadership donc mu nekk coach en leadership monsieur Guèye Moustapha ñu ngi lay dalal fii ci Kër Leyti. ok jërëjëf merci ak asalaamaaleykum madame Cissé ak Leyti. Mhm maa lay sargal yak sa mm-hmm. soxna mm-hmm. mangi nuyu également madame Doucouré mm-hmm. ak téléspectateur deug la euh, yow sax li tax nga gën fi tew euh, yow yaay DG wu groupe Girafe accompagne ñu ci émission bi di Cœur Leyti est-ce que mun nga ñu waxal euh, lan moy solos groupe Girafe waaw groupe Girafe ci wolof moy groupe Njamala xam nga Njamala mom ci all mom dafa bari jam mom jam rek ak harmonie Mudah suñu grup bi ñun dañuy suqat lepp luy jam dañuy tagat également nit mm-hmm. nit rek ngay jigen gay gor euh pour am jam ci dundu mm-hmm. nga am jam ci sa ay mm-hmm. am jam ci ligai liggéeyu kay se ligai se liggéey sa couple mucc ayib donc vraiment groupe giraffe mom nit taxajuk euh tagat nit ba nga gëna mat nit Euh, ci ni ngay xalaate ci ni ngay waxe ci ni ngay jëfe waaw macha allah waaw ba nga xam ne daal mm-hmm. diggante góor ak jigéen ci couple yi mm-hmm. sëy yi mm-hmm. mburoog soow wala suukar ak lem rek moo fay nekk dëgg la euh, sëy nag euh, dafa nekk loo xamante ne si dafa am solo ci waaye dencante yi am solo ci famille bi am solo ci askan bi li waral nag couple bi nga xamante ne si moom la ñu toogal di layti ak xujj ñu topp leen Nous avons nak euh, manam rek ñu caméra euh, chaque jour rek ay mbir yu ñuy ay sénégalais en tout cas lu ñu à travers euh, l'été. sénégalais gis ci à travers xudja aussi képp kuy sénégalaise wala sax africaine gis. Euh, sa bop ci xujja euh limay def rek mbokki xarit yi moy dal di len indil nak suñu premier épisode euh, li nga xam mom modi série euh, Kër RTS de indil len ko bu ko defee nag ñu daal di ñëw ci euh, plateau bi fas yéene waxtaan ak euh, sunu gan yi ak tamit couple bi nga xamantene ne si ñoom ñoo ñu dalal dinañu ñëw tamit ci euh, au cours de l'émission ci ay patch yo xamantene ne si amal nañu torop solo ñu fas yéene ci waxtaan kon duma def rek lu daal di ànd ak réalisation mi ñu ñëw ci li nga xamné modi premier épisode seen série cœur Leyti bi nak ñu tuddee ko le choix boy yon bi yëpp dama ko taf tafe ndax sa kar kar kar lan la lu xew mbaa jàmm non grand jàmm la xam nga mënuma la woon wax par téléphone parce que li ma lay wax dama bëggoon nga ñëw ñu toog tête à tête comprendre uh-huh. ma wax la lu ma la bëgg a wax quoi parce que vraiment yàgg nga ma topp di ma conseiller nga may wax naan responsable nga da nga war a jabar da nga war a jabar fi mu ne nag ci projet boobu laa nekk te daanaka ñor na mat information bi dal moy grand vraiment je veux me marier bientôt waaw mais boy félicitations vraiment de dama content. mais li dama lako yaga a wax da nga wara a tak jaba fondé fonder une famille et puis yow fa ngay liggéeyee responsable nga yaay sen tawu keur en plus en même temps depuis cinq ans yaa ngi manke wo dara xool sa keur gi lan mo fi manqué

<laughs> xam naa choix bi grand xawoon na metti xawoon na difficile quoi waaw bon tànn bi yombul woon mais à un moment donné xaw naa ñafe quoi ci sama xel xam nga rek man xam nga ndaanaan laa quoi <laughs> xam nga ku gérer cinq copines di dund ak ñoom te kenn xamu ko kenn ci moom ñoom xamul sa morom mm-hmm. bon loolu ndaanaan ko mën grand ah ndaanaan dëgg mën loolu bon yow yow xam nga penda mm-hmm. penda mënul togg mënul liggéey liggéeyu kër. Ah franchement waaw bon Fatou bëgg na ma trop. mais Fatou elle n'est pas ouverte waaw moom moom moom yaatuwul ci nit ñi quoi du jigéen bu ubbeeku te xam nga aussi xam nga Sénégal dafa am ay réalité quoi xam nga bon. loolu moom di bu baax. ah hein? donc bi nekk ak ndey elles sont très belles gis nga leen rafet nañ ba fu rafet yem mhm. mais dañu yëg seen taar benen bi ci top dañuy bëgg gérer la manipulatrice quoi comme je veux dire dañ lay bëgg manipuler té xam nga grand man nan bu toll ni man. et puis yow kan nga sax. lolu mom yow ak yow du dem man man nan man. non lolu ah, man ah sama jabar naan ma xaar ma ma liggéeyi te wàcc toogal foofu bul bul génn kër gi <laughs> man du ma genre yooyu si kër gi quoi di la xam nga ci ay service am ngay dox man du ma ah, man man du ma genre yooyu ak yow du loolu ah donc keneen ki mooy xujja ah. certes elle n'est pas trop trop belle mais xujja elle est ouverte bon yaatu na ubbeeku na xam nga mun na communiquer ak nit yi xam nga mun na accueillir say nit donc xujja daal am na ay qualités vraiment yu ma gis ci moom bon li ci gën a grave mooy dafa mën a togg grand xujja xoola bu la omlettalee mu day mel ni suluxu mbalax non dafa non attends attends yow wax ji frankulaayu na booy dëgg nga bëgg lekk yow lekk bi rek moo la ci rey grand ñun li ma la wax eh. sànq ñun dañu ñëw ñëw dañu juddu senegal fekk fi ay baax baax yooyu faaw ñu topp ko sooy takk jabar da ngay seet jabar boo xam ne vraiment nag dina mën a togg dina yaatu mën a xam nga bon yooyu aussi tamit ñun Sénégal dafa am ay réalité yo xamné dañ judd fekk ko fi donc so ñëwé yow pour ne pas passer à côté il faut nga suivre affaire yoy quoi ah, mom deug la donc motax sama choix vraiment ma porté ko certes nak amna ay défaut xam nga eh, eh, matul eh, fépp xoolal yow ya mot fepp yow yow ya gëna a manqué ñëpp nga <laughs> <laughs> non non grand kenn matul ak kon jeex na ya ko wax léegi nak lool motax yalla

Doudou. nu mu demee. ça va ci la rek. mu bees. ça va bien ça va bien. mbaa lépp jàmm. ça va nag affaire yi. ça va. mais looy ñëw di allongé. ah mais yow nga ñëw am ay gan di xam nga. ah mais grand sonn. ah sinon nag. ça va na mu naa la. ça va. ça va bien. ah yow de bon da nga ñëw juste sax parce que léegi léegi léegi la mu Doudou di wax sérieusement lu mu désiré seen diggante yéen ñaar. No, di tu ha. jauh dah. Ha. No, di tu jauh dah. No, jauh lah sak me jauh pun ya. Exactly. No, yau yau yau ham ga dudu. Eh, ham ga limu nek ciman, ham ga fimu fite ciman kwa. Donc, eh, suma grand la, suma conseil la, suma confident la, wa suma suma lep la dal, suma kutsi la, wa ah, suma kutsi la. Lah. Sino sa ba? Bon sa ba? Ah, sa ba. Dekat famé bi? Ah, ni pengsi jamba. Sa ba jamba. Wow. Eh,

nga doon xaritam bu loolu amee moom di ngeen doon meilleur couple te jàmm rek ngeen am mhm. beneen bi mooy euh, may souhaité nag loolu gaawam jour cérémonie bi moom pooj ba ma làkkoon laay génne <laughs> bon grand merci vraiment merci encore xam gis naa fi ma taxaw gis naa aussi xam nga appui accompagnement bi nga bi nga bi nga bi nga fété ci man quoi mais tamit ma bëgg la rassurer tamit ben affaire bon wax na la xudja bo gisé ma def choix ci mom donc dama am ci mom yaakar motax ma porter sama choix ci mom franchement dama am ci mom yaakar quoi voilà hmm. merci chérie vraiment dou content na trop tay hmm. mais nak yaakar bu mu am ci man tey laay jël sama engagement sa kanam doy nga ma seede yaakaar bu mu am ci man am naa ci moom bu ko ëpp te bu soobee yàlla dinaa ko sëyal ba mu xam ne sëyal naa ko te yàlla rek tax parce dama ko bëgg vraiment. non bëggante moom loolu moom c'est déjà. loolu moom mooy géej am na ndox. maintenant oui mais nag euh, sant yàlla mais na xoolal dama leen fausse compagnie.

baax la quoi ah, vraiment ku baax la mais am na loo xam ne euh, il est temps ñu wax ci quoi parce que ñun la concerné franchement euh, sooy dugg ci mariage tamit donc il faut nga dem ci formalité yi mhm. te loolu en dehors de la famille man ak yow la engagé quoi donc dis-moi réellement man lan laa war def ci mariage bi cérémonie bi lu def tu vois lan mooy dem fi luy dem fait donc c'est la quoi formalité <laughs> voilà. Ah, chérie comme je t'ai dit yo xam nga sunu keur bu la dara lu compliqué sam papa mom ci rek lay dox li nga xamanteni mom la l'islam soxla. Mhm. jabar li ngay andi la lay ah, jabar ba mais en tout cas la dara lu metti te sama pap d'habitude ku di le même jour la ah oui ah oui. paa bi boo waxtaan see may la. jabar may la jabar. mais yow papa responsable non vraiment li mon man li la bëgg ci kilifa quoi. Non mom loolu la la ah, samay samay samay sœur yépp non la len le ci jour bi ñu may ci jour bi. Wa, ta ba para nak, mhm. bu la jabar ba paré, do fa fana. bu la mais man loolu la bëgg chérie man exactement loolu laa bu ñu la taqee ci jour bi muur la ci jour bi nga sey ci jour bi. su ko defee nga wàcc sama kër yaay bon boo wàccee sama kër yaay après ñu ñibbi si fii si kër gi <laughs> ñëw sa kër. yow yàkkamti rek. non du question lu baax boo koy def dang nga ciy gaaw non amul yàkkamti en tout cas man aw ma ci benn pression pression bi ci yow la féete. féetewul ci man. Ah, parce que xam nga buñ mayee muur bu sey maire yi am na yu ñuy xaar. <laughs> ay waat na ba wàcc xujja waat na ba wàcc. selum lu c'est vrai loolu man du pression bi féetewul ci man quand même pression bi ci ah mais il faut mu demee noonu ah c'est bon bon léegi bon dinaa xalaat après man après charia bi nga wax paa beeg maye bi garaawul mais man naa xalaat xam lan la du loolu sax mais damay xalaat juste rek yow loo yow loo si gis yow dara xam nga man chéri man xam la bu baax yow bon awma lu may tiit ci yow mhm. parce que yàgg nañu mhm. man kay su may tiit mhm. sa côté parent say sœur taman toujours damay dégg ñu naan goro yi dañu naqaree nekkal dañu metti ak njëkke yi Koudia arrête arrête man xoola xam nga lool da nga koy wax ku dëkk ak ay goro yow dëkkook sama yaay dëkkook samay sœur tu vois donc yow sa kër ngay ñëw sama kër ngay ñëw ñun dëkkuñu sama yaay dëkkul sama kër xam nga loolu bu ñuy wax problème yi nekk ci sëy mooy ngeen dëkk tey maire bi bu ngeen dëkkoon benn kii sama sœur yi ñu dëkk benn gàlle donc ay affaire mënul mais yéen dëkku leen nu ngeen di amee problème waaw mënu leen am problème waaw xam nga xam naa loolu non yow da def li nga war a def ñoom ñu def li ñu war a def mais est-ce que dinaa nekk à sa biir famille non xalaat yooyu man maa la tànn dama gis ci yow ay qualité ma tànn la ñoom aussi dama dëkk ak ñoom ñu jur yar ma ma xam leen ñu xam ma xam li ñu bëgg ak li ñu bañ tu vois loolu moo tax man ma def choix ci yow leer na ma ne yow boo demee suma kër yaay sëy fa di nga fa mën a nekk parce que di ngeen mën a def man maay arbitre bi maa nekk ci diggante bi maa xam ñaari camp yi. xam nga non bu ci tiit bu ci wa non non yow li la tiital waxoo ko de. non yow yeneen affaire yi ñoo la tiital. non mais nañ waxante dëgg rek ay xujja waat na ba wàcce. waaw ku jawaat na ba waaj cay selum lu mbaajaan ah maire yi loolu la ñu xaar de non wuy ma sëy si suba nga maire yi la bàjjan yeeg xam nga tanta yeeg <laughs> tu vois yooyu moom xam naa ne tey bon xam naa ne loolu moom bon du problème ci yow <laughs> en tout pare naa man. Ah, pare naa. pare nga. <laughs> ma pare.

dina munte dina bu amé njaboot it dina ko yax comme ni ko waxee yare deug la dëgg la société traditionnelle non la dan doxé mhm. sëy yu bëri non lañ ko takkee du sëy yëpp yoy nak ñoo réussir mhm. buñ ko dan def c'était pour lan pour euh, société bi pour dëgëral famille pour mu am cohésion sociale mhm. parce que buñuy wax sëy moy lan ci sociologie moy lan moy dañuy légaliser rek relation sexuelle pour bañ ni jigen tey jigen bu bëri c'est une affaire gourou yu bari mhm. te bu kenn du xam bi mhm. légaliser ko construire société bi. tek ay normes tek ay normes ki domou diw la ki ñuy tabax société bi ba ñu tekk en place. loolu mooy mariage ci sociologie. dinañ ñëw ci les critères yi nga xam ne moom moo war a tax nga tànn soxna. Mhm. est-ce que moom mi ngi ci biir. Mhm. wala am na yu wala am na yu euh, jox ah importance mhm. Fall la sant moom lekk bi daal gis naa ne jox na ko importance bu ah. rëy est-ce que ci loolu la ñu war a sukkandiku wala yeneen ak ah. monsieur Guèye yow góor nga. Euh, euh, waaye tamit euh, spécialiste wàllu couple nga yàgg nga gis ay couple yoo xam ne ne ñi ngi doxal am ñoo xam ne seen couple mi ngi soox am ñoo xam ne ñi ngi am jafe-jafe li nga gis nii tey yow lan la la inspiré. waaw merci beaucoup ñun ci suñu approche approche su nit sëy relation la. Mm-hmm. relation la boo xam ne bii dañ koy tabax dañ koy tabax jëm ëllëg. Mm-hmm. Euh, gis nañ ci Leyti ni mu euh, ni muy waxtaane ak euh, futur jabaram mhm. moom moo doon teg di seet donc ci ñun suñu approche jigéen bi aussi dafa war a seet parce que comme sey relation la jigéen góor góor ak jigéen su góor gi di tànn mhm. di seet ay critères jigéen bi aussi dafa war di tànn di seet ay critères mhm. bon parce que sama collègue bi madame Doucouré légui c'est ko n'est-ce pas société bi mais légui jamono bi yi di yebal du ko ko dinañu ci école bi dinañu ci ci bus bi. dinañu ci bi. Mhm. ainsi de suite. Mhm. ak ci euh, voie de communication moderne donc li ci li am importance te xam naa ne ñëwaguñ ci dinaa ko laaj layti ak soxnaam mhm. mooy boo leen demee ba destiné da ngeen di sëy ngeen définir lan moo tax ngeen décider nekk ensemble mhm. ak jëm fan waaw parce que loolu dafay nekk seen baromètre mhm. ëllëg bi ngeen bëgg a tabax yéen ñaar ak naka ngeen koy tabaxee li ngeen ci namm loolu dafay nekk baromètre. absolument voilà dégg naa dëgg waa léegi euh, monsieur Guèye li mu wax euh, lu am solo la léegi tànn na teg ay critères am léegi yow euh, Khoudia yow lan moo tax nga ne waaw léegi ma doog ñëw nag ci beneen laaj boo xam ne xam naa ne yow sa bopp soxal na la parce que li ñu fi gis nii xaw ma ndax yow yëgoon nga parce que yenn saa yi tamit madame Doucouré nga nga xam bàcca loolu stratégie léegi moom foog na ne kenn xamul mais yenn saa jigéen ñi dañuy xam bàyyi noonu. léegi yow li ko li monsieur Guèye wax rek laa bëggoon nga tontu ci mooy yow ci yan euh, critère nga sukkandiku. bon ci critères yi ma sukkandiku bëri na comme euh, monsieur Guèye ni ko waxee. Mhm. ni góor di seetee jabar noonu la jigéen war a seet jëkkër. yow seet nga Leyti bu baax. bu baax lan nga gis ci moom. bari na Euh, comme li naan euh, sama jaba dama koy sama doom dama koy tànnal yaay mais man samay doom dama leen tànnal papa. macha allah waaw. Mhm. man li ma wan doy na ma parce que yërmande la ñuy ut ci góor. Mhm. xam qualité jigéen. Mhm. xam gëdd jigéen. te loolu gis naa ko ci moom. waaw waaw am na nag lu ma ci bett moom parce que mosuma woon xalaat ne boole na juróomi gal kon xamoo si woon dara xamu ko woon moom. parce que mosuma ko gis. mosuma dox ba fekk fa kenn. tout temps mi ngi ak man. joué na daal jeu bi <laughs> waaw. D'accord, mais instant euh, bi parce que euh, finalement le choix c'est yow la bon mhm. pour l'instant mhm. ah, mais grave comme def. <laughs> donc ci la porte bi. très bien euh, omelette waaw dafa mën togg bu omelette day mel ni suluxu mbalax nee na suluxu mbalax <laughs> man loolu maa ngi koy doog a dégg léegi yow sa yi mën nga ñu ci waxal tuuti lan moo tax nga porter ce choix surtout togg bi man dafa mel ni daal dafa mel ni togg bi dong moo la amal njëriñ waa xam ni ma ko waxee mhm. mooy euh, Sénégal dañoo am lu ñu fi fekk mhm. dañoo judd fekk ko fi mhm. mooy sooy jël soxna baax na tamit nga jël soxna bu yaatu bu mun a joxe ñam parce que loolu tamit ci suñuy réalité la bokk donc bokk na ci mooy dañoo judd fekk suñu papa yi ak mhm. suñu suñu yaay di dund loolu mhm. mooy buñ booy déglu sa yaay sax buy buy conseiller sa sœur mhm. da koy wax na nga yaatu na nga mën a joxe na nga xër ci booy togg ndax boo sëyee donc loolu tamit nga koy dund xam ko euh, kon yow it boo demee bay tànn da ngay xalaat sa waajur li mu doon conseiller say sœur loolu tamit nga nga fexe yow tamit am soxna bu mel noonu indil leen ko moo gën ngay indi ku ŋot koo xam ne ni bu toggee du doy ah léegi sa yaay da lay xool bëtu daan nañ wax say sœur dee leen dee leen yaatal ah pour bu ngeen sëyee te yow tey indil nga ñu fi ku ŋoot moo tax bi may def. loolu koo xam ne danaan boo leen may seet si dee leen ma woo. leen ma woo di ma wax wala di ma prévenir. ba xam ndax ñaar ñett ñeent ngeen. loolu daal yaakaar nga ne xujje moom même bu ko fukk bete rek. léppay normal waaw aussi tamit euh, moom warul mer. donte sax amoon naa ñeent yoo xam ne moom xamu ko waru cee mer. Mm. ndax rek mais monsieur Gay, est-ce que c'est toujours en général comme ça que ça se passe. xam nga choix mon bu ñu koy wax rek il dafa am plusieurs éléments. waaw waaw euh, choix dafa dafa subjectif. le plus souvent parce que yow mi nga xam y yow yaay def choix bi da il koy en fonction sa ay ngëm-ngëm sa ay croyance sa ay valeur sa ay aussi sa socialisation parce que amna lo xamné Li, dafa bokkoon ci niñ la yare moy limu wax légui waaw donc ci lool ngay jaar ngay def choix. Mhm. mais mais attention euh, xam nga jamono dafa dox nak légui ba xawa soppeku donc euh, man ci suma ay référence ak ci niñ koy niñ niñuy expliquer togg mën togg de plus en plus nekkatul choix. waaw parce que fi mu nekk nii jamono bi dox na dox na boo xam ne bii sooy ut jabar di sa seet togg amaat na du la toggal jamais. Ah, mais est-ce que vous aussi chaque jour euh, ou il faut nous relativiser parce que même si vous voulez je servir donc pour te dire que euh, ce n'est plus évident donc il faut critère critères il faut nous relativiser moi j'aimerais d'accord

dina am moment boo xam ne jigéen dina dugg si waañ di xool di ci nekk loolu yëpp si suñu dund la bokk même bu ñu nekkee intellectuel si suñu dund la bokk bu ñu nekkul intellectuel it suñu dund la bokk da ngay gis intellectuel yu mag kenn du leen toggal añ kenn du leen toggal xeex dañuy wàcc summeeku dugg si waañ defaral seen kër defar seen jëkkër toppatoo seen njaboot bu baax mm-hmm. wala intellectuel yo ci bureau suñu kër parce que dañu suñu dañu suñu kër comme monsieur c'est juste une question de choix et de valeur mm-hmm. choix ak valeur socialisation bi ngay am bi nga nekké Nous ñu la koy duggal ci sa bi xel mm-hmm. ñu la koy inculquer di la koy mm-hmm. comme ni lay wax jigen day sëy jigen day muñ li moy walam jigen day muñ togg jigen day muñ la plupart du temps dañuy faté sax ne góor tamit du jigen kese mo yox sëy góor tamit ci bi la bok mhm. ni jigen di ni góor di tànnee non lay jigen di comme absolument am solo la. Mhm. parce que yow bëgg nga aussi sa bàyyi moy référence ci ci ci bu góor mhm. bu xoolee li bayam di def euleuk mu ne ah sama papa kat ni dan daan sama sama yaay mhm. man buguna aussi euleuk buma ma dom diko di non sama yaay dëgg la kon tan bobu lu am solo la tamit jigen bi di ci baye xel mhm. goor bi di ci baye xel man man ligéyu kër dal baxna na ci euh, c'est vrai que nak amna goor yu moderne comme monsieur Gay, yo xamné ne xeyna ça ne pose pas trop un problème Euh, mais euh, dans bien des cas dafay nekk aussi lu am solo wala nga xam ne bu ñu la ko nangulee comme madame Doucouré nu mu ko wax au début après dina nekk mhm. benn euh, source de conflit man man li ma gis mooy mutation dafa am ci suñu mhm. société bi mhm. waxuma ne mën togg baaxul si mën togg baax na lekk bu neex baax na mais pour dem ba def ko nag critère critère u takk jabar je crois que xale yi léegi dépassé nañ loolu dépassé jamono dépassé na loolu d'accord baxna en plus euh lo mun togg togg togg mhm. il faut aussi jëkkër bi di la jappalé ci togg bi waxuma la muy ñëw di togg mhm. mais mu naan neex na wala mom sax mu mhm. wax la ban plat la bugg di lek OK parce que légui jamono mom mo doxee noonu man togg baxna mais en fait je pense pas que kenn takatul jabar pour mu ñëw di la toggal ci biir kër gi kessé wala muy ñëw di

def li nga xamante ne moom lañ ko sant ci wàllu diine ji wàllu société bi indi ko nag ci këram ak ban jigéen aussi la ko góor ki jigéen ki également naturellement moom tamit war a xalaat sëy euh, du ñu def rek lu daal di déglu ki nga xam ne moom moo di duudu di xarit euh, ci leyti lan la ko soññee woon nga war a yàgg a takk jabar fonder mm-hmm. fa ngay liggéeyee responsable nga mm-hmm. yaay seen taawu kër en plus mm-hmm.

nek apparemment ki nga xamantene si mom moo koy teg ci yoon bi diko ko conseiller léegi euh, monsieur gay lima ma xam rek moy est-ce que dafa am âge euh, précis pour wara xalat tak euh, takk soxna. déedéet du ma wax ne amna âge précis. Mm-hmm. waye xamna naa ne am ay fourchette. Mm-hmm. ay fourchette âge yo xam fi fii Sénégal so démé ba mat. Euh, mais man au delà de l'âge dinaa mhm. ñëwaat ci âge bi mais li ma gën a intéressé mhm. ci sama angle bi may ñëwee suma approche ontologique mhm. nit mooy mat est-ce que mat nga euh, kilifa mat nga kilifa ci sa xalaatin ci sa ay yëg-yëg ci sa ay waxin ak ci sa ay jëfin te loolu jotewul dara ak âge bi loolu jotewul ak dara âge mais da ngay dem ba mun a mot kilifa ñaare nag mun na nekk à partir de vingt cinq ans waaye nit boo demee bay waaj a takk jabar da nga war a tàggatu ba nga xam ne eh, di nga comme li soxna si mu ngi doon wax wax yërmande mhm. ci sa waxin dina am dal am jàmm mhm. Mhm. Eh, ci sa xalaatin dina am dal am jàmm et puis jabar ji nga xam ne ji da nga koy takk andi ci sa kër également dina di ngeen bëgg a am foolin jëm defar njoboot ak yu demee noonu donc li ñu doon wax jabar da nga koy mët da nga koy mët ci sa ci sa ci nite beneen affaire bi nag mooy danga koy mën aussi. waaw loolu c'est extrêmement important mooy li ñuy wax naan jabar kenn ko mët dañ koy mën wala kenn ko mën de ñaar yëpp lay boole dama dama ne koy mët mën ko nga koy mët mën ko excellent waaw parce que justement boo boo takkee jabar ngeen dëkk ci kër il faut ngeen fay courant il faut ngeen fay kër gi il faut ngeen lekk saako ceeb bi il faut ngeen mhm. euh, am dépense quotidienne mhm. il faut ngeen préparer aussi ëllëg ak si biir boo leen amee ay doom mhm. nangam ak nangam donc daal jabar da nga koy mët mën ko Nous sommes en université, à partir de 25 ans, 26 ans, nous avons commencé mhm. mhm. à faire des astuces. Donc, la période de la Mais si je fais que nous avons fait des choses, nous avons fait des Donc, à partir de. de bataille Fofrek, Fofdal, je crois autour de la vingtaine, mhm. n'est-ce pas, 25 ans. Euh, ci la gis ni ci ngay gëna ñor gëna a gëna am assurance mhm. gëna am confiance yow ci yow en tant que góor Doudou mu ngi wax ne que yow yaay taw est-ce que ça veut dire que bo nekkee taw bu góor pression bi ci yow lay gëna nek pour nga teel a marié teel a joxe le bon exemple waaw absolument taw mom dafa nek mhm. nekk mhm. euh mom le musa doon d'ailleurs ci biir famille yi dafa nek aussi yakar euh surtout bu fekkee da nga nek taaw parents yo xam dañu xaw neew néew doole. Mm-hmm. donc dañuy bugu justement nga mëna a am kàttan euh, am am am pour mun leen a jàppale. la donc euh, taw dafa dafa dafa xawa a chargé. Mm-hmm. Ah, traditionnellement ci njaboot ki mm-hmm. et puis dafa nek royu kay ci rak yeeg. deug la madame doukouré xam nga dañu nek ci société bo xam pression bi mom metti na torop ñu tek ko ci kaw jigen ñi te du jigen moy ñaan. du jigen moy tak du jigen moy décider goor ñi ñoy décider lan ngay wax ci lool

ñu ne léegi nag sëy bi dina commencé lu gën a néew 18 ans. Mhm. jëm kaw lay doon. Mhm. Mhm. mais Jang, bi ñuy dem légui tax na léegi femmes 25 ans jëm kaw sax. waaye surtout bu fekkee ne da ngay dem ba maîtrise. ba maîtrise ba euh, dépassé maîtrise ba dem doctorat parfois. sa liguey bi sa liguey bi daf lay incité. Euh, day tax nak peut-être sa xel sax dina ci nekk mais da ngay bëgg mënal sa bopp. bu ñu sété ñun comme ñu suñu waajur ñu daan wax man dama fatali ku sama papa daf ñu daan ne

25 ans batay tey amoo jëkkër amoo man bima amé 25 ans jur sama juróomi dom wala juróom benn lolu daf ñuy indi aussi ci avantage yu teel a parce que suñu yaay yi à 18 ans lañ doon sëy am sen taw donc euh, amna ci sax ño xamantene si tel nañu am sen ay dom gëna wara mëna nak mun sen liggéey ak yoy bon amna avantage quand même léegi xujje yow euh naa nga wax ma yow

sonolonama mhm. and bu aussi yagona mhm. ah, manaka defal fula bu fekke beug nga ma defal fula mhm. parce que euh, li du dem du continuer te lul deug du yag te da ngay da ngay outil damay outil te tay ma am jabar mo gëna yomb tay ma am ci kon manako defal fula bu dé paré nga dafa fula ñu sey mhm. ñu fondé une famille mhm. am njaboot bu wa mhm. waaw macha allah légui léegi Leyti yow euh, apparemment depuis cinq ans ñu ngi la top takal takal takal takal takal nga të rek te yaa ngi nekk responsable am kër gu ne yàmbal macha allah dara manqué wu fa. Euh, lan moo tax euh, nga toog rek bañ a bañ a bañ wala nga toppoon rek euh, xam nga li ci génn moom du ci du ci sëy. maanaam di bulow. waaw di wax dama doon <laughs> xam nga dama laa ñemewul pour wax la ko looloo ma si ma jàpp de. fu mu du bulow sax mm. ne <laughs> xam nga code boo nekkee célibataire nga yàgg ci. Mm. tamit da ngay jël sa bët di ko teg ci marié yi xam nga ne foofu nga jëm. donc euh, li ma man laa wax li ma gën a bañ ci sama àdduna mhm. mooy sëy bu tas mhm. divorce moom su ma ko déggee rek mun na maanaam mun na yàq lu bari ci sax lu ma doon def divorce daal laa buggul donc da nga ragaloon waaw divorce donc kii xalaat ne divorce daal bugguma ko kon di nga xalaat sooy takk jabar ban jabar nga war a takk mm. dinga nga tànn jabar bi nga war a takk parce que da nga euh, dafa am lu jiitu ci sa bopp mooy buggoo sëy bu tas mhm. kenn ñaanu ko yàlla ah loolu bokkoon na tamit ci li ma doon li ma doon li taxoon ma doon ma doon di tànn parce que tamit ñëpp yemuñu te xam nga tànn bi tamit dafa jaadu woon ma tànn dafa dafa jaadu ci ci ci ci lu bari ci point yu bari tànn bi dafa jaadu te woon na waaw du yomb nag du yomb moo tax nag ñu ralentir ay cinq ans nag may bërëg ndànk-ndànk di xool ci ko di xool xam nga tamit parfois ñoom Euh, daf ci am ñoo xam ne dañuy dañuy tayaat ci xale yu jigéen yi waaw daf ci am ñuy tayaat ñoo xam ne dañuy sukk sa kanam nii di jooy ndax mbëggeel di jooy ndax mbëggeel bugg nga takk leen rek boo leen takkee ñu indil la beneen jikko bu bokk ak ba ngay dund ak ñoom la nga xamul woon donc loolu tamit daf ci am mhm. yooyu yëpp tamit man dama ko doon sóoraale di bañ ku ma ku nax di bañ ku ma bett. étudier nga leen bu baax waaw étudier naa leen bu baax a baax. di mhm. topp seen jikko. Mhm. di leen nëbbatu. monsieur Guèye dégg nga ko dégg nga ko mu ne ci am ñaar ñu manipulatrice yéen góor yi da ngeen di bañ lool. Euh, man nag xaw na xaw naa évoluer tuuti. ci ci ci ci ci système boobu. amna ben mag bu doon wax ne ju fasema ba ci mhm. Mhm. mais ñun encore une fois suñu euh, zéro divorce Il ba divorce fase am mhm. violence am du tout mais lolu foog ñu tabax ko motax ñun suñu approche sey dañ koy tabax waaw parce que léegi loolu la parce que euh, xam nga dafa jamono soppeeku na sëyeetuñu simplement pour defar ay doom. Mhm. waaw pour pour jur ay doom ñu bari déedéet jamono bi metti na euh, mutation am na euh, gën na tar donc même ba ci defar ay ba ci am ay doom dangeen ko war a planifier. Mhm. n'est-ce pas fi ngeen di dëkk. da ko war planifier. Mhm. kañ ngeen am ay doom da ko war planifier parce que affaire bi dafa dafa tar les données ont changé les données ont changé. Mhm. jëkkër ak jabar bi aussi da ngeen dem and di di jàngandoo. Mhm. ah pour pour pour defarwaat pour mën a togat. parce que bon euh, au-delà de vous de yéen ñaar ñi nga xam ne yéen a ko sax aussi la belle famille n'est-ce pas te dinañ ci ñëw incha allah voilà kon li may wax rek mooy euh, kenn du sëy pour tas on ne se marie pas pour divorcer en tout cas booy dem di sëy njort bi nga ci am mooy bu rafet waaw léegi nag euh, le choix a été très difficile mais def finalement euh, porté nag choix am ci xujja xam naa ne fii ak beneen émission incha allah dina fekk ñu marié ba pare

xam nga mun na accueillir say nit donc xujja daal am na ay qualité vraiment yu ma gis ci moom bon li ci gën a grave mooy dafa mën a togg grand xujja xoola bu la omlettalee mu day mel ni suluxu mbalax na xujja elle est très belle franchement elle est très belle non par rapport ak ñeneen ñi ma yor yéen xujja rek ngeen gis de am na ñeneen de am na ñeent ñu ne. ci da amoon ay Miss Monde daal. yu yu yu macha ñoo ñeneen ñi ñoo dàq xuja. <laughs> waaye ba tey xuja nangul yaa gañ. <laughs> xooluma leen sax en tout cas li ma bëggoon maa ngi ko fas yéenee am ci kàttanu yàlla yàlla yàlla bu dugg daal. Mm. bu ñu cat dugg ma ndax yow. <laughs> monsieur Guèye. yow yow que xalaat nga ne euh, beauté physique dafa am solo. ci biir euh, sëy bi wala ndax beauté intérieure mom nga xalaat ne lañu wara privilégier privilégié. wala bo amé ñaari tamit mo gën. waaw euh, xam nga xam nga sey mom liko ko laal ay émotion la nak koddu euh, ah mhm. ay émotion la. Mhm. mais je crois que li gëna am importance moy li ci biir xol yi. li ci biir xol yi li ci biir xel yi ak intention bi n'est-ce pas bi ngay duggé ci biir sey bi. Mhm. Ah, parce que tard aussi dafay jeex ah comme yëf bi c'est toute une vie soo accroché trop ci taar bon les fleurs se fanent comme on dit euh, ëllëg ak si biir xëy ko gisati et je crois que euh, moo tax ñoom ñaar xam naa ne xamante nañ euh, ni ñu xamante lu bari lu mu wax ci lu rafet ci ci ci xujja nay continuer di gis loolu xam nga li gën a souvent ci sëy yi mooy parce que yarewuñ ñu noonu yarewuñ ñu di apprécier wante di delo won ci ndukal di nga di nga di ngeen démarrer ni eh, ay rafet ngay wax mais xuje bax nga xuje nawna la xuje contane na ci yow lolou duñ koy faral di waxante parce que yare wuñ ñu mais gis nga di delo ndukal di apprécier sa morom di apprécier lu muy def ci lu bax té nak ngay gorgolu di gis lolou rek absolument Wa, loolu c'est extrêmement important te dafay dundal sëy dëgg la wa. xuj madame euh, Doucouré foofu sax xam naa après yow yaa ciy ñëw xuj am na benn aspect boo xam ne gisuma ko ci euh, témoignage yu Leyti ma bëggoon la laaj ndax yow di ngay julli bu baax mm. ndax soo déggee bi may waxtaan ak Leyti nee naa ko sama papa ci diina rek la yar mm-hmm. ci charia bu fajare juk len julli lay wax ñeppay juk julli amul goor amul jigen peut-être li arrivé jigen ñi arrivé la nga bañu julli mais mm-hmm. waxtu duñu raw est-ce que yow diiné bobu ngay dund ma sha Allah mm-hmm. yow jël nga ci critère bobu pour xol ndax leeti ban façon waxtu duko raw ki limay nekk ak mom ah kon baxna madame duko re <laughs> madame duko re parce que <laughs> dafa am aussi dafa am aussi luñu wax ci euh, critère yi uh-huh. mo xam nga nek catholique mo xam nga nek musulman lan nga xalaat ci wàllu euh, diine bi noonu da ci am solo tamit nga lu am solo la. lu am solo la musulman nga juif juif wala chrétien. Mhm. parce que diine dafa doon ne euh, dafay tey sëy mhm. soo amee diine di nga am yërmande parce que diine daf lay jàngal yërmande mhm. soo amee diine di nga mun ci comme comportement yu baax yi ngay xaar. si sa njaboot di nga xam nooy doxalee sa àddina bu baax donc diine daf lay daf lay wan yoon boo xam ne yoon bu rafet mhm. yoon bu baax boo xam ne foofu nga waree yaree sa njaboot dëgg la boo amee tak tànnee nag góor bu tànnee jigéen bu am diine jigéen tànn góor bu am diine tamit loolu dafay neexal biir kër rek mhm. mais ak mais nag li ci gën a am solo mooy mbëggeel bi mhm. parce que mbëggeel bu ci amee ànd ak diine bi parce que diine sax boo ko amee

monsieur Guèye wax na lu am solo. Mhm. nit amna 40 ans sax te amul maturité. ah loolu amna nit amna 50 ans te amul maturité. mënul mhm. té jabar mënul yar njabot mhm. te loolu lu am solo la nit amna 16 ans gëna am maturité ku am 40 ans. deug la loolu yépp ci caractère nit ki ak ci yar buñ ko jox la. absolument loolu am solo la té vraiment. ni ngeen defenté yéen ñaar ah ñu ngi xaar suite bi. ah dina ma neex de <laughs> suite bi neex bu neex ngay gis. ah bu neex donc léegi yow. Euh, xëy na da nga ko waxul mais bàyyi woon nga xel ci aspect jullite bi. waaw xam nga booy seet. doo doo doo yër fii rek ba fële booy seet da ngay seet fépp. mooy yow yow ni nga mel da ngay bëgg wala ni fi nga bëgg jikko bi nga bëgg jikko bi nga bi nga bëgg euh, sa soxna mel noonu. Mhm. donc da ngay xool côté yëpp. Mhm. Euh, comme yow dañ laa yar. ci yow da ngaa xëy da ngaa juddu nekk jullit. Mhm. ñu yar la ci julli. te julli bu fekkee jullit nga julli bokk na ci luy defar jikko comme ni nga wax diine dafa bokk ci luy luy luy jox nit yërmande absolument diine dafa bokk ci lu lay tàggat lu lay préparer mhm. diine mhm. am na loo xam ne danga koy sañ def mais sa diine daf la koy tere nga ne mhm. ah lii sama diine tere na ma ko kon man waruma koo def dëgg la kon diine da lay protéger doomu aadama bi wan la yoon bi aussi la yoon donc kon man bi may xool côté yooyu yëpp dama ko xool te ngeen bàyyi xel ne man dama wax ne dama bàyyi certes elle n'est pas trop laa wax ci ci biir wax naa ne rafetul waaye dama bàyyi ñu ko dàq takk ko kon man xooluma ta man jikko laa xool te gis naa ko ci moom te it wax naa duudu mm. foofu sax sama yaram dafa daw bi ma ko waxee ba mm-hmm. pare mm-hmm. dama ne duudu xujja mii dama am ci moom yaakaar yàlla tam mu am ci yow yaakaar <laughs> ñun tam ñu am ci yéen yaakaar yàlla bu yaakaar euh, tas xujje euh, wax na ko sànq dafa bokk ci famille boo xamante ne si charia la ñuy doxal waaye li nga wax rek léegi euh, foofu laay yëkkatee mooy nga doon ci diine chrétien bi wala ci diine l'islam bi en tout cas nit da ngay gëm yàlla ndaxte yàlla boo ko gëmee fonk ko rek yàlla dafa am lu mu wax ci diggante góor ak jigéen boo ko toppee rek euh, doo juum kon yal nañu yàlla may euh, sunu biir xel yi ak xol yi ñu def ci yàlla ba nga xam ne dinañ topp li nga xam ne moom mooy tax ñu mën a réussir sunu mariage kon du ñu def rek euh, madame Doucouré monsieur Guèye ñëw nag ci li nga xam ne mooy formalité yi parce que ginnaaw ngeen dox daje moo xam ca lycée ba ca mbedd ma ca liggéey yoonu liggéeykaay wala fu munti doon parce que fi nit mën a dajeek boroom këram bëri na ba ngeen wax ba juboo ci kàddu euh, di ngeen awale nag yëf yi nag fi ko askan bi euh, daan awale parce que dafa am nag ay euh, réalités yoo xam ne moom la ñuy dund ay réalités socioculturelles yoo xam ne ci la ñuy wéy ak tamit nag diine ji nu mu tegalee nan la ak naka la ci wàllu sëy ñu daal di déglu nag ki nga xam ne moom moo di fiancé bi seen waa kër nan la ñu nar a fas yéene doxalee ñu des waat ci plateau bi. comme je t'ai yow xam nga sunu kër bu baax laajuñu la dara lu compliqué sam papa moom ci charia rek lay dox li nga xamante ni moom la lislaam soxla. kuy mhm. takk jabar li ngay andi loolu kese la lay laaj. ah léegi na yow soo takkee sa jabar ba pare yaa xam loo koy defal mais en tout cas daal teguñu la dara lu metti mhm. te sam papa moom d'habitude ku ñëw di waxtaan si le même jour la lay may jabar.

dañuy ut naan ndax diw lii laa diw lu muy liggéey ak ndax di ci dugal daal ay considération yu bari yoo xam ne day faf sax yéexal sëy bi mbaa mu faf sax euh, ba dootul am lan nga xalaat ci euh, loolu noonu. waaw waaw xam nga sëy sëy moom euh, dafa am facette yu bari wax ngeen sànq facetu diine bi institution religieuse la te ci diine yëpp dañ ko organiser de ba pare simplifier ko. parce que ñaare dañ lay laaj intention bi ak seede yi mhm. du deug ak euh, guro gi wala dot bi ak yu demee noonu wala alliance mhm. donc diine bi daf ko simplifier ensuite mais c'est aussi institution civile justice bi daf ko organiser troisième aspect bi moy affaire aada yi mhm. je je crois que moy aspect sociaux yi nga doon wax ah. dafa am ay yenn ancrage social yo xamni dafay diisal. absolument affaire daf koy diisal daf koy seeral. Mm. dafay andi sax après ay préjugés. parce que d'emblée rek gis góor takk na jabar rek mere jabar ji sax. Mm. balaa balaa ñuy teg <laughs> ndax liñ koy sas. tu et donc yooyu yooyu nañ ci dañ ciy bàyyi xel mais je mm. crois que Leyti ak Khoudia ñoom eh, dañu. ñoom ils sont chanceux. couple bi moom dafa parce que papa yi dafa mel ni paa bu expéditif la. en tout cas man dafa mel ni ñoo nuro man ak mom ah machallah dama xawa expéditif <laughs> sur ce plan mais mais mais non la wara débé je crois que war nañu mëna bon yombal processus bi aussi ça mhm. ne veut pas dire que euh duñ ko tek ci ay charte ak mhm. ay rigueur mhm. yo xamné ñi nga xamné ñom ñoy sey dañu café ëlëg ak sibir

charia waaye leneen li nga xamné ne koy defal sa jaba yow yaay set waaw parce que xeyna bobu amna am na lu mu waxanteeg yaayam dama supposé rek. am yaayam joxe na daan na joxe ndawtal fenn yaayam daan na joxe ay ndawtal yaayam daan na dem ay xew. Mhm. yooyu yëpp te doomam bu jigéen da bëgg na ko teral. Mhm. te aussi diine yëpp dañ ko permettre. l'islam dafa ne jigéen lañuy ñuy siiwal la ñuy noos ba mu neex di moom la rek nangu ñu tëggal ko ndënd. di moom rek boo seetee ci chrétiens yi aussi dinañ toog un an wala deux ans di dajale khalis pour def mariage église ah, bu rëy bu mhm. def parce que lolu dafa doon institution bu comme liko monsieur gay waxe institution religieuse la mhm. lu am solo la moy lo xamné comme li nga ragal moy divorce mhm. liko l'islam sibé non loko catholique sax n'angoul divorce ko pour pour dire donc lolu yep dañ ci dañ ciy bàyyi xel yeneen ñi ci nek nak bu njëkk ba xam nga pour lan la won pour don mu don une une cohésion sociale famille bi dajaloo mu neex joxante jox ni et li ci rax ci couple bi mhm. da ngay indi un million nga doubler ko un million un million yu ndaw waxu ndaw si mhm. lan lay mhm. xam nga am aussi ci xel couple bi dafa construction moy lan ba dafa jabaram dépense fay ndox fay courant Mm-hmm. téye jabaram nu mu ko waxee a téye ndax bu du lool ñu sikk ko ëllëg ne dugal na jabaram ba pare mm-hmm. ne ko sax téye dëgg la yow xujja xujja est-ce que yow euh, foofu nga doon yow yow yow bi nga koy wax ne ko après nag leneen looy defal sa soxna yaay xool yow fan nga doon xalaatee bon fi ma doon xalaatee mooy euh, comme li euh, maman bi wax mm-hmm. dañu war a ànd ëllëg dund fonde sunu kër defar sunu kër war a lekk war a naan war a fay courant mais bu ñu jëlee loolu yëpp consommé ko ci mariage bi après mariage bi nu ñuy def. Mhm. mais nañu xool li nga xamante ni mënul ñàkk. li nga xam ne jaadu na te ku ko gis xam ne lii jaadu na ñu def ko. Mhm. mais nekkul da ngay nekk foofu di jël xaas bi def lu la neex mhm. di pookere après yow ñi nga toogoon di la tàccu ñooy toog amee la. ñooy toog di la jëw ñooy toog di wax naka su dul noonu mhm. yow nga des fa ak say problème mhm. fekk leboon nga fii leb nga fee te du ko jar mhm. du ko jar gis nga ki nga àndal bu la bëggee teral rek dina la teral dëgg la dina la teral te teraanga du tuuti du tuuti dëgg na xool li nga xamante ni jaadu na li nga xamante ni mënul ñàkk li nga xamante ni tey ku ko gis wala ku ko dégg ay la yëwa ne li kat jaadu na ñu def ko ñu bàyyi yàq bi yàq bi baaxul. léegi ndaw si sas na la. dama ko bëgg. sas na la sas na la sas na la parce que dina la dina la euh, yërmande. yow man ji la ngor. ba tey dag ba tey yaa di dëggal sama ndaanaan ngay dëggal. man xam naa ne man xam naa ne fa nar a génnee moom dina ba tey yaa ngi wane sama ndaanaan ah, xam nga xam nga du woon moom kese moom la woon ak ñeneen man gis nga li mu may yombalal nii mais loolu ci sama xel la dox. su ma demoon ci poussière day metti ci man. sas na waaye sas na la tamit de. waaw xam nga du la gën a gore. waaw non loolu moom dañ koy teg ndax moom tamit tànn na ma natt ma ba xam kan laa. mooy mhm. tamit euh, am na loo xam ne même mhm. su ma ko waxul tamit mhm. xam naa ne war na. ndax moom laaj naa ko ne ko nag en dehors de la famille. waaw man ak yow nag war nañu waxtaan ci modalité yi. lan laa war a def <laughs> ndax nag dama pare. dama koo waaj de. cinq ans dama bari na <laughs> waaw léegi li ma bëggoon a dolli foofu. bi yëgle bi c'était pour que ñëpp xam ne mhm. diw ak diw sëy nañu mhm. comme ça kenn dootul ñëwati di labat mhm. di labat xujja wala ngay def leneen donc yëgle la mu am beneen partie boo xam ne ci social bi pour mu offrir ay cadeau la pour couple bi pour que ñu bañ a sonn bu ñuy démarrer seen mariage wala dem seen kër benen affaire bi moy fête bi mhm. lekko nano mhm. ñun nak suñu problème souvent moy dañuy ñak ragné mhm. si bien que da fay am sembokhlo euh ah, dépenses yi ëpp ëpp le loxo tu vois bu fekké né yow da ngay dem yow yaay ji di maye sa dom finalement ngay andété wu et puis ça ah, de nga day da ngay gis ay yaay yo xamné dañuy tak la nga day day euh, il faut première yi mm-hmm. lan def Lolu nonu mm-hmm. di yeglé di offrir cadeau mm-hmm. et puis def ko mu yem te mu bañ la sonnal deug la voilà la euh, dañuy tamit réalité notamment pour nous, les femmes Euh, mooy appréhension yi ngay am balaa ngay dugg ci sëy bi moo xam ña ngay fekk ji naka lañ lay gisee est-ce que di nga mëtal ak yu demee noonu xujo am na lu mu ci wax euh, apparemment euh, tiit na ñu seetaan loolu taal di ñëwaat. awma lu may tiit ci yow. parce que yàgg nañu. Mm-hmm. man kay su may tiit sa côté parent say sœur. te man toujours damay dégg ñu naan goro yi dañu naqaree nekkal dañu metti ak njëkke yi kujja arrête arrête man xoola xam nga lool da nga koy wax ku dëkk ak ay goro yow dëkkook sama yaay dëkkook samay sœur tu vois donc yow sa kër ngay ñëw sama kër ngay ñëw euh, lii wax na lu am solo monsieur Guèye euh, gis naa ne que ci wàllu wi góor gi dafa am importance bu rëy rëy rëy bu mu war a jouer

et ainsi de suite. dañ koy ça veut dire que euh, c'est fondé ou non. suñ koy jiiñ nit bi. xam nga motax c'est tort ou a raison. Motax mané euh, préparation bi dafa bax waxtan. xam nga nit euh, code lu mu am dafa am intention yéeneem ak waxam et ça c'est important gis nga ce goro bu jigéen sa allié la ci ce sey. Mm-hmm. waaw. Sey d'abord ñaar nit ñoko ko mm-hmm. mais parents yi len wër C'est ay allié. lañ donc il de l'intérêt mm-hmm. ku jigéen gi mu jubóog yaay jëkkëram ak mbokki jëkkëram il y aussi intérêt ku góor gi mu jigoo jubóog mbokki euh, ku jigéen ki euh, ku jigéen ki parce que loolu mooy partie famille famille bi mm-hmm. bu paasee ñoom ñaar dañoo am ay doom seen doom yi am ay maam ay tante ay bàjjen mm-hmm. ay nijaay et donc loolu yëpp booy dugg yow ci sey en tant que jigéen wala en tant que góor da war a ne

do am temps pour waxtaan ak mom moom dul suñu ada sax mhm. dul won suñu ada ñu tok ne sañ suñu dombu jigen euh yow kat tollu nga ci sey té boy sey kat li amna ci li amna ci li amna ci mhm. da fay ñew gis kuku ko bëgg rek ñu dox affaire bi xale bi duggu ci sey mhm. sans aucune préparation sans mu xam que dina fekk ji benen famille parce que monsieur gay wax na ko sëy kenn ñaari ñoo ko séq waaye ñaari famille aussi ñoko ko séq ndax dina am am yaay ku góor ki am yaay bu yaayam dundulit Amna ay jigéen mhm. amna ay tante amna ay maam ak mbokk mhm. yëpp ngi ku jigéen ki la même chose aussi mhm. té ñaari famille yooyu buñu déggo rek sey bi neex buñu déggo sey bi sey bu du neex donc il faut ñu tagat xalé yi muy ku goor ki comme mu jigéen ki nekk sey dafa am solo que parents yi tamit ñoom dañ ci am rôle yow mi di accueillir doomu jàmbur ki di ñew ci sa kër parce que xalé bu jigéen bi moy sey si def ko ni sa doom bi nga jur parce que do bëgg mukk sa doom bi nga jur di dem sey mu am lu ko métti dëgg la yow mii ku góor ki mm-hmm. yow tamit yaay jël sa jabaram sa doomu jàmbur di ko indi sa kër it kër googu ngay dugg jël nañ la def la ni doom kon nag teel seen doom ba mu rafet mm-hmm. donc wax wax wax yu mel noonu ak euh, gis-gis yu mel noonu buñ ko daan doon def rek mm-hmm. dëkk bi dina neex dëgg la mais parce que souvent dañuy dem ak ay a priori ne ci su ma demee naka la sama belle-mère di gisee mais am na ñoo xam ne tey par exemple am na fu ma demoon tey fii bi dafa dafa ne dafa tok di waxtaan ak belle-mère di waxtaan ak belle-mère am bay jëw belle-sœur am <laughs> te mère bi mo jur domam ñu koy jëw ñom ñaar ça veut dire que complicité amna fofu mm-hmm. parce que xeyna na doom na belle-mère bi uuf na ba nga xamné ne mm-hmm. Mm-hmm. sañ na tey mu tok di jëw domam bi mu jur moom ak ak belle-fille xam nga lolu c'est c'est très important xam nga lolu yépp ci yow ni ngay indé sa yow ku góor ki tamit lu am importance nga wan na sa jabar nekk kii mooy sama yaay mhm. teel ma ko bu baax mhm. kii sama jigéen la teel ma ko bu baax yow mi tamit ku góor ki nga ne sa yaay kii kat dama ko jëlee si seen kër mhm. yaayam denk ma ko yow nag tey yaay yaayam yaay toppatool ma ko nangam ngeen defee boo leen ko defee rek di nga gis affaire yi dina dox bu baax société bi dina gën a neex mais yow yow xam naa loolu jot nga ko sóoraale naka nga fas yéene gérer xujja euh, ak sa belle sa sa waa defe naa ne loolu wax naa ko ko nee naa ko man maay arbitre bi. Mhm. parce que maa nekk ci diggante ñaari camp mooy man xam naa kër ga ma juddoo yaroo fa. lu ñu bëgg ak lu ñu bañ. Mhm. ba bi ma leen di tànnal tànnal naa leen koo xam ne su ñëwee dana fa war a. mën a ku méngoog seen i bëgg-bëgg seen i bëgg-bëgg. jeex na xam nga li ñu wax tamit dafa am solo. gis nga prépare maanaam dara mbir. lekk bi gay lekk sax da koy préparé. Mhm. balaa nga koy lekk. parce que bëgg nga bu duggee ci sa yaram. aliment eh, yooyu aliment ya eh, waaw waaw ko du neexaay bi rek mais waa aliment ya eh, richesse yooyu mm-hmm. préparé maanaam looy def ci ci àdduna rek da nga koy préparé surtout sëy mm-hmm. comme ni ngeen ko waxee mm-hmm. euh, surtout sëy loo xamante ni seen àdduna la dem ba seen adduna la ci dund bi ngeen di dund ba bi ngeen di sàngoo suuf kenn xamul fu mu yem kon loolu su ngeen di ànd da ngeen a war a préparé seen ànd boobu donc loolu moo tax tamit man bi may waxtaan ak moom ma ne ko nag ah man tànn naa la waaye tamit tànn naa fi ngay jëm fan la ba bu ma leen bu ma la indee foofu rek xam naa mhm. jikko yi di ngeen war a mën a def. léegi xujja yow sa xel dal na. waa sama xel dal na ndax le fait ma bàyyi yaay bàyyi ko ginnaaw ma nekk na moom ki nekkin bu rafet. Mhm. mu yeb ma. Mhm. ni man na nga mel ni comme mbaxana nanga nga oyof kon su may dem rek war naa xam ni man yaay laay fekki. ndax dangay nekk ak sa yaay bi ngay nekk xale nga juddu nekk liir bu tooy xepp ngay màgg lu nekk nga di ko def sa yaay. Mhm. lu nekk nga di ko def sa yaay muy metti sa yaay di ko muñ. nga dem ba majeur nekk magum jëmm nga ëlbatiku di war a teral sa yaay ba seddal xolom kon faneen foo dem rek war nga mën a uuf yaay boobu. Mhm. war nga mën a def comme ni nga ko ni nga def sa yaay. liiti daal tànn na. waa tànn na yàlla la yàlla jàppale ba bul euh, rëccu tànn bi. na ñu ñaan rek. la ma leen waxoo rek dama am ci moom yaakaar. yàlla bu yaakaar yàlla bu yaakaar tas <laughs> euh, ak tamit képp koo xam ne ne jamono ji yaa ngi toll fii liiti toll. am yaakaar ci kenn yàlla bu yaakaar tas yal yàlla def rek ba seen ànd doon ànd bi gën ci ànd yi léegi nag euh, ñu ngi waaj a jëm ci cappaandawu émission bi euh, kon Leyti ak Khoudia war jëm ci li nga xam ne moom moo di euh, sëy seen sëy xam naa ne dinañ ci ñëw ci épisode yi di ñëw incha kon nag dañuy jeexale ak li nga xamante ne si moom moo di kàddu yi leen duudu bàyyil euh, ginnaaw nag fu mu nekk nii ñu ngi waa di dugg nag ci lu am solo ci lu sérieux loo xam ne du fo euh, ñu déglu duudu daal di ñëw nag jeexale euh, kàddu yooyu bu fekkee ne am na loo xam ne sunu experts yi dinañ ko ci yokk. sëy dafa doon loo xam ne dafa sacré surtout ñaar ñu ko séq. lu gën a am importance mooy nañuy communiquer di waxtaan lu bëri kenn bañ a nëbb sa moroom dara lu yendu ci yow fanaan ci moom lu fanaan ci moom yendu ci yow surtout beneen bu gën a am solo bi mooy euh, ngeen joxante cër parce que couple bu ñu joxantee cër rek lu ñu song mën nañ ko daan. monsieur Guèye dégg naa ci kàddu Doudou yi euh, respect.

So, nekkee nit li ngay ñëk soxla moy bo xifé nga nan, bo mhm. nga sangu mhm. nga di nga mais si vous passez rek da ngay relationnel donc relation euh, nit ak nit am galan gi ñu nit donc nit dans sa quintessence jamm la relation donc tas féewaloo ak rupture de relation dafa war a exceptionnel ci dundu donc donc loolu nak xamuñ ko souvent euh, ñaare dañuy melni nit li muy mer a nit normalement su que ne da nga war bob sa pour nga dominer maîtriser sa ay yek yek sa ay émotion teewlu sa bopp ci ni ngay waxe ci li ngay xalaat teewlu sa bopp ci ni ngay jëfe mhm. donc ñi nga xam ne ñu ngi sëy bu ñu

te boo leen nekkee jox ku ne jox ci sa morom yow nga xam ne kii mu daf lay muñal mi ngi ci kër gi di la taxaw di la jàppale nga jox ko wàllam ba mu mot yow tam nga xam ne kii mooy sa borom kër jox ko wàllam aussi ba mu mot mm-hmm. loolu boo nu ko defee rek sëy bi dina dina gën a dina neex mm-hmm. te it diine comme ni ñu ko waxee muy beneen diine bu mu munti doon dafa bu laloo ci diggante ñaari nit euh, ñaari waay dencante rek loolu dafay tax yërmande am seen biir mm-hmm. il faut yërmande bu ko lalee rek sëy bi sëy bi de pour mu bañ a pour mu ba pour mu am pour mu yàqu dina jafe torop mm. il faut cër mbëggeel mbëggeel sax dafay mujj mm-hmm. parce que di dem ba nga xamante ne yow ki nga séqal euh, da ngeen di dem ba affection mooy gën a am que nobel nobel sax mm-hmm. foo leen di dem bu yàgg di yàgg da ngeen di dem ba ba da ngeen di gis couple yoo xam ne quarante am nañ cinquante ans soixante dix ans de mariage da gis ñu nekk ñoom ñaar kese di waxante di parce que boobu

loo leen def ci sutura rek parce que loo def si sa sëy nga génne ko ci biti dafay yàq sëy wallaay sëy lu ko lal mooy sutura foofu nag jigéen ñi la ñuy gën a voilà mhm. waxtaan waxtaan ak sa borom kër li ngay waxtaan ak sa borom kër bu ko génne ci biti mhm. li ngay jëflanteeg moom bu ko génne ci biti mhm. loolu am solo la ndax boo leen lalee sutura rek yàlla moom dina loo lal sutura rek ma suturaal ko loo weer rek ma weex ko donc loolu lal lal leen ko sutura def ci ba mu rafet parce que ñaan ngeen yàlla am ci njaboot te njaboot boobu aussi

ngir ndénkaane après xujje moom tamit euh, wax ak yow ñu daal di tàggoo. Euh, di leen xaar nag ba <laughs> fii ak jamono fan ngeen ni mujjee. <laughs> li ma koy wax rek mooy euh, moom na fexe xam ñi fan lañ dëkk. ngoon gu jot mu dem seeti leen. non c'est vrai mu defi fa stage de. non moom na fexe xam mu Guèye fu mu dëkk. waaw xam madame Doucouré fu mu dëkk. monsieur groupe girafe ah. la groupe girafe moom seen téléphone la la monsieur Guèye ak seen

ndax euh, jàng naa ci monsieur Guèye mu ne te loolu de bëgg naa ko dugal ci suñu say mm-hmm. jàng naa ci mu ne lu la sa soxna defal del apprécier di complimenté est-ce que yow bi ngeen di ñëw wax nga ko nekko euh, coiffure bi macha <laughs> allah xam nga waaw waaw comme bu solo na bu dee wax na la loolu complimenté bokk na ci luy dundal xol waa loolu dama koo jàng te xam ne loolu arme la tamit xam nga même xam nga loolu tamit Euh, jàng naa ci waaye tamit fekk na ma mm-hmm. ndax koo xam ne danga ne yow moom bu omelette day mel ni sulluxu mbalax. omelette fanweer te sulluxu mbalax di jar 4000. 4000 <laughs> <laughs> waaw sulluxu mbalax omelette di jar fanweer. yow daal jëndal say tabletu nen rek. <laughs> waaye boo amee génne gan génnee benn. kon defe naa ne xujja. Mm. foofu moom bëgg naa nga nga bàyyi ci xel ci waxtaan bi yëpp ndax. Mm-hmm. Euh, ñoom daal budul ñeneen sax duudoog keneen mooy ñii déjà préparé nañ ci nan lañ war a séyee man nag li ma fi root yëpp doyul sax waaw euh, waaw dinaa ko yow fu ko damaa bañ yéen ñu leen di indil xujja damaa bañ divorce dama koy wax fii de damaa bañ divorce waaw ah damaa bañ divorce de fi mu ne nii ni nga ko waxee man fekk nga ma ci mm-hmm. samay doom laa tànnal yaay tànn naa la ba yàlla bu yaakaar tas xujja ah, ah, naka góorgóorlu de man pare naa ah. la nag allah bu mhm. soobee yàlla mhm. euh, koddu bu fekkente ni jigéen mënul dem sans góor góor mënul dem sans jigéen nañ rafetal ànd bi mhm. ñun yàlla daf fi wàccee pour góor ak jigéen ñuy ànd kon nañ ko rafetal c'est très simple nañuy waxtaan di yëgoo xàccandoo di dóorandoo mhm. olof Njaay nag nee na wat gaal ak yëgu mhm. doo am dara la naqari chéri je t'aime oh. <laughs> dina ma neex yéen daal gis nga nag xujja mii jóge na de dafa jóge dafa jóge waaye maa ko gën a jóge ah, waaw la de bu la ko yóbbul de

appel bi donc euh donc euh, ak euh, Leyti dalal ñu ci Villa Racine ak euh, équipe RTS de Yip, japp ci liggéey ba mu yem ba ma leen di bu baax a di leen sante di leen rek jox dox dajé ayubis yi di ñëw fi ci RTS de encore plus proche de vous à très bientôt.